ci njiital Serigne Saliou Fall ñi ngi bàyyi ko ba Thiès ci ñoom nag Mbàkke bi démb ba léegi ci lañ tàmbale njàng mi booba léegi noppaluwuñ kuréel gu jug beneen kuréel toogaat ba noonee sa njabootu bopp gi di daara Hizbut Tarqiyyah di waa ko Sëriñ Yuusu Jóob ñoom it léegi lañ jub jàng nañ fi Mbàkke ñoom lañ bëgg a jox kàddu ñu yëkkati ko incha allah rabbi ci sëñ Saali bisimilah. مختار لي بلا مسير ولا لعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا محا توجه المكاره ليا باقي الحبا بذكره وهو ليا أنا رديد وعني رادي بلا مكاره ولا أمرادي raddali xayri jëngati saytaana manta yabal ma marawal awtaana raddali xayri jëngati laxiinu yasuuqu xaali xayrin almuinu hadiyaati min al ilaahi wa nabi kulliyati safat wa safat nabi tawfiiq haadi al aqaad wal ilhaam بدأتي اليوم برب خيب أعاسني ممن خلا وخيب لا يتوجه لنحوي مطعب عني محد مكاره وتعب سعادتي بخير محو كتبت وكوني العقل قديما قد سبت شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير jërëjëf sëñ Ibrahima Mbacke sëriñ Cheikh Touré mii moom sëriñ Saliou Touré dafa wax ne daa bëggoon balaa sëriñ Saliou Fall mii yëkkati ay kàddu ci jëriñu ci ci turu mbooloo mépp mu sànni ci ñaari kàddu yoo xam ne daf koy yalwaan ngir seereel ko seereel la sa diggante ak mbooloo mii sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mi ngi nuyu mu ngi leen nuyu Mbacke bu baax a baax di la siyaare baax ci turu mbooloo mi muy mbooloo moo xam ne. mu ne ay daayira yu bari lañu ak ay école sëriñ Saali Touré boole woon leen jox leen aw tur Majmahun Nurayni waaye Mbàkke mu lay xamal ne mbooloo mi mbooloo mu jàmbar lool lañ mu ne lépp lu aju ci kër ga ak yoonu sëriñ Tuubaa yi mu ne kenn mënu ci mu ne duñ noppalu guddeeg bëccëg ñu ngi ci liggéey bi kër ga it taxaw ñu taxaw fa taxawaay bu am solo mu ne gannaaw li fi sëriñ bi nekk lépp ci kanamu sëriñ bi lépp mu ne ñu am ci taxawaay bu am solo lool mu ne taxawaay boobee bañ gisoon sëriñ bi ba léegi dakkul mu ne tey jii la raw mu ne loo rek la doon seere Mbàkke di sàkk ci yow Mbàkke nga ñaanal leen bu baax ñu gën a mën a liggéeyal sëriñ bi topp sa gannaaw déglu say ndigal ak say tere jërëjëf. rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulilahi alladi dañoo jàpp ne loolu bi muy wàcc ñun ñoo tax ndax ñun sant rek ñu war ñu Mbàkke alhamdulilahi alladi hadayna li haza loolu bi muy wàcc dañoo jàpp ne ñun ñoo tax ndax ñun genn njukkal lañ am te sëñ Tuubaa koy njukkal dañuy di ay gone màgg suñuy wayjur wommat ñu jëme ñu ci école yi ñu nekk fa li ëpp ci ñun xamuñu dara ci alxuraan li ëpp ci ñun xamuñu sax ay baatu arab waaye sëntubaa Tuubaa fekk nu fa dimbali ñu ndimbal loo xam ni tax na suñu xol dara lekkul sëriñ bi Mbàkke bàlla murit boo gis am na lu muy tawat waaye ñun tawatum dara ñun ñu ngi sant sant gi nag li ko waral mooy bu yàggu dara loolu mën naa ko nettali sëñ Saal Touré danoo waxoon nañu di ngeen dund ba dajeeg sëñ Tuubaa yàlla dox ñuy dox 2007 2017 lan ñëw ci barab bii dikkoon fi ngir topp jeexitu sëñ Basiru ci biir digg googu ñu boole ñoo ko suñu seex mu suñu Abdou Latif moom mu tatanduñu gàttanduñu ñu yendu fi ba ngoon waññeeku mu daan nañu sëriñ bi nee na daa bugg a daje génn ci ëllëg sa keroog lañ dugg ci loxol Sëriñ Tuubaa ba tey Mbàkke ñun de yaakaar gu rëy rëy lañu am ci yow ñobbut jombut sax koo gis muy liggéey am na lu tax muy liggéey waaye ñun lenn rekk a tax bëgg ngërëmal Sëriñ Tuubaa te ngërëm loolu jàpp nanu ni buñ ko amee wut ci yow mënuñu ko amee fenn fenn ci àddina dundoon ba dee dajeeg yow te mënuñoo am ngërëm a sëñ Tuubaa ñàkkoon dund moo na ko gënal kon nag Mbàkke noo ngi nii di ay gone fanaan nañ fay jàng ba waxtu yi ñu toll yëkkati suñu àddi yow nuyoo la ko waaye njàng mi nag amuñu lenn lenn luñ ci fas lu dul bégal la ak bëgg ngërëmal sëñ baax ci biir loolu itam bi ñuy dikk ñun ñoo sàkk woon ci sëñ Cheikh Touré mu ñëw gungeenu nu ngir tax sëñ Cheikh Touré dañ daan wax naan saa bu ngeen jëm ci sëñ Tuubaa bu ma sañoon ànd ak yéen yaram wi mayu ko woon mu bàyyi fi am njaboot ñu sàkku ci moom taxawaay boobu mu amoon mu ñëw gunge ci waaye cant geek xewal yeeg lépp ci genn jëmm la jëm muy sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Latif ndax boole gi jàpp gi lépp ci loo yëg ak loo yëgul saa su mi ngi ñuy nemmeeku saa su mi ngi ñuy topp saa mi ngi mi ngi bëgg ñu gën a xintewoo lu baax waaye nag loolu lépp dan la koy delloo Mbàkke nun daal ñoo ngi nii ay jaam lañu yu néewi kàttan yu ragal yu xamul suñ jëm waaye jàpp nañu ni bi nu duggee sa loxo ak tey tawfeex rek lañu am te loolu tax na fa nu jëm ragaloon fa doy nga ñu doy goo xam ne Sëñ Tuubaa ci jataay bii ñu toog bu ñëwoon ñun ñëpp kenn du ko jox loxo ndax doy gi ñu doy lépp yow lañ koy bàyyee kon nag dimbali nu dimbal ñu ndimbal loo xam ni fu nu demati danañ xam ne ñii teg nañ leen loxo te ñun jomb ñu ne loolu mën nga ko ndax Mbàkke sëñ Saliou Touré danoo mës a wax nañu sëñ Muntaxa bés bu moomee yoon wi bari na lu sëñ Tuubaa bëggoon dana ko taxawal loolu nag dox nañ ba teg ci suñu bët am na nu tawféexu dajeeg loolu tawfeex gi li tax ñu yëg ko mooy ñi jamonante woon ak ñi ñu jiitu woon te jamonante feek ñi wuutu woon sëñ Tuubaa amut kenn koo xam ni jàpp nañu ne ñee nganu ndax nit ku ne ci jamonoom la ko suñ borom di wàccee te la méngoog mbiram la koy booleel ñun jàpp nañ ni yaay sunu mbir mbake lépp a ngi sa loxo foo bëgg nu yegg danañ fa yegg lu ñu amut ci yow la waaye sunu pas-pas ak sunu bëgg lépp dénk nañ la ko sàmmal nu lépp lenn rek lañ bëgg mooy sax ci li la bëgg sax ci wut ngërëmal sëñ Tuubaa loolu bu mu ko amee lépp mat na daara yeeg fépp fu mu dem alal jeeg lépp bu mu ñàkkoon lépp te defee sëñ bi doy nanu ndax gis nañ ni moom rek nga xool te foo xool la ñuy xool jërëjëf Mbàkke Mbàkke ñu dolli ci mbooloo ma ca mbaaru maam jaar ma ca mbaaru maam jaar ma soxna yi ñu àndal ak soxna yi nga xam ne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 mu fi mu nekk nag mooy sëriñ bi rek mu ne sëriñ bi dajale na lépp yi boromam mu ne kon nag bu ñu amee tawfeex ju toll nii jëm ci sëriñ Touba mu ne ñu am tawféex ju toll ni yàlla xiir leen jug jëm si ci sëriñ bi mu ne loolu di tawféex ju rëy sama diggante ak ñoom mu ne xam na seen taxawaay bu baax a baax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 amin Mbàkke buñ noppee ñu ubbi bunt bi ndànk bisimilah. amin jërë ngeen jëf bisimilah.